représenté nga dara quand fii ci parcelle en tout cas d' après ci li nga xamee ni rédaction Senbuzz gis na ko ak euh, li nga jot dund en tout cas si jeel bi ak euh, ci sa dund li muy ndaw ndaw gisoo ni quand même war nga dépassé fii am benn taxawaay boo xam ni war nga ko gën a mën a am euh, lu jëm ci yi bi ak ndaw parcelle sa message gën di jàll am taxawaay boo xam ni xëy na lu boo lu wuteeg rek toog di wax ci média yi nit ñi di la dégg amul benn taxawaay boo gis ni il est temps nga ko ci lu gàtt rek duma dara mhm. suuf ak ak xamalan dara laa yàlla lu mu gën a fonk doomu aadama du ma dara bu ma dee gis nga mbalit bee fa lañ may dugal perkaal laa yóbbu ak samay jëf yu rafet ñoom fay dugal ajana dara laa doomu aadama yàlla loolu la gën a fonk ñaar yooyu am represent xamalal la di wax dëgg di dund charia mooy li borom bi wax mais xoolal Malcolm X dam lay wax xoolal King dañ doon wax di jëf ah di xeex ñu leen tëj ba justice am Malcolm X xam nga ko. Malcolm X xam nga ko jàng nga. absolument ah mais lan moo tax doo jël exemple quand même ci doomu sénégalais boo nee ma Malcolm X certainement Amérique la am na lu mu représenté. pour der bu ñuul Sénégal ku mel ni man ki nga xam ne xëy na jàngul amul possibilité xam ko euh, sa message gën a mën a jàll quand même jotul nga jël koo xam ne exemple lay nekk fii ci Sénégal dafa amul wala da nga ko xamul exactement. non sénégalais du ma jël exemple ci Sénégal man rek exemple doy na ma you know I got man. man exemple rek doy na ma parce que man bu ma bu ma toogee di toog wala may wax réel toog fo réel toog laay wax waxu dëgg laay wax. exemple la su ma jël exemple dama jël example ñi nga xam ne ñoo xar àddina bi xar monde bi dañuy wax seen tur si biir tubaab bi sax tubaab bi daw wala taw bi daw liir loolu wala lu ko ñoon ñooy exemple mais doo exemple loo ko xam ne town bi rek lay nekk àddina bi du town bi kese sénégalais ñu ngi fépp indew la fépp si continent yi boo demee ba Argentine cercle feu ak bi àddina bi jeexee sax xamatuma sénégalais yaa ngi fi kon boo jël exemple da nga jël exemple si nga xam ne ki nga xam ne fu mu dem si àddina bi xam nañ turam xam nga boo duggee si rap dañuy naan pak mooy le rappeur le plus mythique dee na léegi Snoop lañ koy wax Snoop foo dem xam nañ Snoop boo yëpp xam nañ koy Snoop dëgg loolu dëgg Marley xam nga Marley du man fekkee wu ma jamonoom 81 la dee maa ngi am ay two years mais ñun dañoo juddu xam Marley xamul tax ndax black people bi kon booy day taxawaay taxawaay àddina taxawaay nit ku ñuul. yow si ñooñu ngay roy man si ñooñu laay roy damay raw roy si ñi nga xam dañuy der bu ñuul ak pauvre. ñoom pak boo gisee ma bëgg leen ñaan si xaalisu gars yi loolu dafa am ba seet comme li ma nii seen milliards yi ñu yor affaire yooyu te nit mu ngi fee du lekk du reer du añ benn nit yor ay milliards yor ay cinquante oto ah loolu la nga Sénégal Sénégal gars yi dañuy enrichir si peuple bi di enrichir si pauvre yi mooy xamal leen tey nguur bi day ñëw fal benn ministre ñu ne ministre bi lii la fekk avant ministre boobu nekk loon dara de mais dugal nañ ko si nguur bi rek nekk na billionnaire ñoom Aly Ngouille Ndiaye fii lañ nekkoon si si coronavirus bi di di di zëngal di def or la loi di joxe ay charte nañ tëj jàkk yi nañ tëj église yi. mais loolu feebar bee ko indi rek Sénégal rek eh, baax xaaral ma eggali di tëj jàkk yi di tëj église yi ah di noot booy yi ñuy joobi si marché yi xaaral ma la de booy di liggéey si marché bi ñu leen di noot booy bu taxaw si tali bi di yor kii benn sol solul mas ñu tànc ko dóor ko mu fay 6000 francs pour yow loolu ko dina ko jik feebar bi loolu lañ si wax. en tout cas loolu lañ annoncé. feebar bi Kaama la primo ko wax Sokana annonce xamalal la. Hmm. balaa gis wala balaa ngay def da jëf. feebar bi ñun xam nañ feebar bi ñan ñoo ko indi nasaraan yi ñoo ko créé buñ am na bu leen neexee ne am na. man Sénégal man feebar bi mënul si man dërëm xam dama ne feebar mënul si man dërëm parce que ñun dañoo jël si feebar feebar bu garaaw lañ dal mooy ñàkk ak xoolal ñàkk am kaddu si dëkk bi ak ñàkk bëgg li nga bëgg doo ko am boobay feebar bu gën a grave boobu du deñ am na yenn sama bulodo yoo xam ne dañ si daay am na ñoo xam ne ñu ngi siy dund jeer am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi si xeeris kon feebar boobu moo raw coronavirus parce que Aly Ngouille moo doon créé ay gars yi di def ay jiital policiers yi ñuy def seen naan dañuy déglu xamalan parce que dañuy obéir ordre la ñuy wax. gars yi ñëw di marché yi di dóor ay lacrymogène di jël seen oto yi di jaar si kaw néew di doole ñuy dee instant même la buñ nee ñi ñëw géej tëj géej yi tëj saal yi jàkk bi allahu akbar ñu koy tere instant ibnu maria bi ñu koy tere yow ñooñu ñooñu ñooñu mënuñu am jàmm de kooku jiite loolu ma max yaam njir bu ne di nga ko looyeeg suñu borom tey anamu tey nekkatul dara wàccee nañ ko kon moom dafa war a dem dafa war a dem jeel dañ ko war a def enquête gis nga temps yi passé rek Sarkozy. président France la woon tu yéen a ngi seetaan procès ci affaire pétrole libyen bi mooy loolu ak pot de vin yi wala booges kan ak kan ak kan. mais lan moo tax Sénégal ñoom loolu ñoom état bi ñoom ñoom ñi nga xam ne si nasaraan yi la ñuy gëstu ñoom du ñu nangu loolu. mais ñun chaque fois les pauvres toujours les pauvres dernier les pauvres dying to poverty mais yéen loolu journaliste yi yéen lan moo tax doo jóge fii nga dem ba si gàlle Aliou Ngouye Ndiaye fekk foofu mu toog ne ko salaamaaleykum mu ne la maaleykum salaam nga ne ko Aliou Ngouye Ndiaye yow yaa doon ministre de l' intérieur te di ñëw interview mais nekkatoo ko. am na ministre yu bari yu wàcc de Aliou Ndiaye soo dee may du tudd turam parce que moo doon jéem a xoqatal nit ñi te mënul xoqatal nit ñi xoqatal liggéey mën yaa waaye ban liggéey waay waaye liggéey day am yoon ministre de l'intérieur France bu soo gis xam boo demee ministre de la France xam lan lañ seen job temps France dafa amoon benn benn activiste comme sama genre yi noir la musicien mais day wax dëgg policiers yi dem fekk ko fekk si gàllam sot ko di ko dóor ba toj boppam gars yi caméra yëpp mais ministre xam lu mu def ministère de l' intérieur boobu dafa woo policiers yi jàppaleen taf Macron def benn réunion d' urgence loolu lan moo tax Aliou Ngouille Ndiaye moom du xel boobu xamu ko de xam la laam si nit ñi moom lu mu yéene si ñun dóor pauvre yi jàpp pauvre yi gaañ pauvre yi nangu pauvre yi lu ñu am te rawale na ay modoom si kaw ba pare yéen yen wax yow mooy lim la war a da ngay dem gàllem nga dem foofu nga fëgg day entré la salaamaaleykum maaleykum salaam Sénégal lool lañ xam mhm. mais nga laaj ko question yi ne ko Aly Ngouille Ndiaye lan moo tax bi ngay nekk ministre de l'intérieur des fois doo xalaat banni aadama loolu nga koy wax Sokana bu ñu doon wax rek ci lu tënku quand même euh, jamono ji doxalin bi nga xamee ni gis nga ko en tout cas en dehors de Aliou Ngouille Ndiaye ki nga xamee ni mooy euh, njiitam mooy président Macky Sall doxalin bi nga xamee ni ba léegi quand même li mu doon dundaloo askan wi donte ni mi ngi continuer di leen ko dundaloo ba léegi mooy mesure barrière yi nga xamee ni moom la ñu santoon ci korona bi ba léegi ñu ne corona bi mu ngi fi sa gis-gis ci tolluwaayu corona ak doxalin. loolooy la dynastie des la dynastie des Faye. maanaam. the dynasty of Faye family. mooy xamalan mhm. régime dictature moo am. mais li ngay def c'est très grave yaa ngi accusé président Macky Sall. mais ban grand ragaluma dara. Mhm. soo demee CES le pays le plus puissant du monde wala nga dem France lu ñuy wax liberté d'expression you know I'm gonna talk the real talk the real talk for real talk damay wax loo xam ne moom laay dund ragaluma si dara parce que boo xoolee tey mooy li mu la wax nga ne li ñu doon def Macky président de la République du Sénégal. xam nga mooy président dañ koy respecté. Mhm. parce que président la mooy suñu président. mais teewul na ñun bu ñu bëggee wax dañuy wax luy dëgg parce que nit amul président amul bàyyi dëgg xolal yàlla bàyyi fi kenn bu jotee dañ koy wax. affaire yooyu ñuy titalaate ay ku wax dëgg li kay ñu jélee noonu xam fee luñ fa am apparemment clim. moom nga am jël. Ah, parce que xamul tax mhm. man suñu ma jëlee la si dëgg lañ ma jel du ma ragal dara. est-ce que xam la mhm. mais ñoom jëlee seen moo tax dynastie bi mu la bu ñu jëlee seen loi teg ko ñoom ñooy njiite ñooy dirise ñoo arme bi yor police bi yor lépp loolu kuy wax xam nga kenn du wax boo waxee lu ñu wax dañ lay jël loolay dictature parce que tey bu France defee li nga def lii mais xoolal nguur bi ñoom dañu war a rus sax parce que coronavirus si kaw la jógee. Mhm. mais tubaab yi ñoom ñu ngi fubal du yéen a ngi koy gis. Mhm. dëgg la wala du dëgg. Mhm. tubaab yi ñu ngi def sport yëpp du. dama leen laaj laaj yow journaliste. absolument da ngay wax waaw bu looyee absolument mais da ngay taw responsabilité parce que ñemewu leen ñankatang bi <laughs> mooy li moo tax man fente loo tax may fente journaliste yi parce que dañuy bëgg interview te ñemewu ñu ñankatang bi li ngay teg dañ koy raay saket ko man xam naa leen ñoom ñëpp ñemewu ñu ko ay défiant lañ xam nim la te ñoom ñoo war a jiite mais boo xoolee kaaw tey sànq rek sama équipe mu ngi doon fool Manchester United mu mëne woon 4 uh-huh. mais lan moo tax fii ñu ne léegi dañuy tere lan football dañuy tere làmb ah dañuy tere basket dañuy tere lan handball ak riij bi te yow kaaw ñu ngi def lépp te coronavirus fa la jógee te ñoom ñoo ñëpp ay moor ëpp ñu lépp Sénégal fii amul lool kon ñun ñun boo xoolee sport Sénégal sax chaque fois huis clos la. sport Sénégal jeunesse bi nii ñu ngi sport rek mais pour nga gis nit ñi ñuy ñëw amul lamb la ñuy ñëw mais ay football doo gis 5 6 vingt 27 handball doo gis 4 18 20 basket tuuti. làmb ngay gis gang parce que booy amuñu leneen làmb lañ mun a seddalee seen xol làmb loolooy wane ne ñun ñun sànku nañ. ci làmb nga xam ne moo ëpp violence. Mhm. jeunesse yëpp si moom la ñuy daw. looloo wane état bi ñoom ñoo njëkk a nekk corrompu parce que ñoo ñu jiite. Mhm. te yooyu business yooyu ma la wax ni fexeel ba bul si dàgg dara yooyu yu ma wax ni yëpp teg ko si ñàngatang bi. lamb sax ci li ñuy fas yéene waxtaan a yow mooy li nga doon junj léegi ku ni sookaana quand même ñu xamoon la ci lamb quand même ah. nga daan ànd ak euh, mbër yu bare bari ñu la daan gis ci seen wet ki ñu fàttali ni ki nga xam ni mooy euh, Jules Balde junior aussi ñuy ñaan yàlla terelee ko aljanna firdawsi rakk la ci yow seen papa yéen bokk ginnaaw bi mu génnee àdduna ba léegi gisatuñu la en tout cas approche wala kaddu yoo xam ne xëy na dina méngoo ak choix bi nga amoon ci ñooñ lamb muy wane ne ba léegi am ci ñoom lan moo waral xajaliko bi nga xam ne dox na si diggante ak lamb de manière générale gis nga xam nga làmb làmb la ñu wax làmb xam nga ñun ñooy ñu koy def ñu koy def ñooy làmbantu mooy mbër bi mooy am mooy am lu neex mooy am lu baax mooy am lu kontante mais ñii di làmbantu supporteurs yi accompagnateurs yi chaque jour ginnaaw man nag soo gisee man dam làmb saram ko baay mais soo gisee nga may yow journal nga may posé si làmb. Mm. parce que dund naa làmb fekkee naa làmb xam naa làmb xam naa si as néew. parce que bi may booy ba léegi maa ngi doon toog si jumukaay mbër muy suma grand frère Ousa Ousa moom a dream loolu làmb. moom yàlla na ko yàlla may gudd fan. wér gu yaram mm. ak koppar ju bari parce que moom ni nga koy gis noonu. xam ndax ñu naan ah, ñàkkul de xam ñu naan gars yi ñuy jàpp ne moom amul si làmb fii déet ñaar dërëm bu mu am da ko doon xar ñett cinq. vingt séddale ko ñëpp ñun moom lañ màggee man dix francs moo am dama koy séddaloo kooku moo xam loolu làmb may booy may toog ci bukaay mbër fekk mbër yi di tàngal fii yëpp di wax mbër yëpp feeñu ñu làmb dam koo xam sama rakk nag yàlla na ko yàlla xara na yóbbu ko firdaw si ah. ak mbéppam doomu aadama ak béppam jullit bu gaañu ak sunu mbokk yi nga xam dañoo génn àddina ñoom ñëpp Jules Baldé Junior moom génn àddina sunu borom moo ko indiwoon moo ko yóbbuwaat you must die you must live da ngay dee da ngay dund. yàlla dee la njëkk a sàkk kooku yàlla ko yàlla yërëm xare ko a bi alors lu waral amatoo choix amatoo choix ci làmb yaa ngi koy junj sa biir wax daanaka da ngay ànd ak ñoom te ñoom rek ñooy avancé donc loo dund la expérience boo dund dundaat ko la wala exactement. non dama bàyyi làmb xam dama bàyyi làmb làmb yaa trop d'injustice. làmb dafa bëri injustice te su ma ko waxee. injustice gars dañuy xam injustice fa la commencé. Mm. soo toppee làmb doo jaamu yàlla yàlla nañ ci yàlla musal. soo toppee làmb mm. doo jaamu yàlla yóbboo bee xam ne li may wax bu baax daam dee soo topee làmb doo jaamu yàlla li nga topp làmb waxtu julli ñëw timis doo julli gee kooku yàlla nañ si yàlla musal li ma jot a dund yooyu noonu si yooyu yëpp yàlla na ma si yàlla baal baal si bàkkaar yeeg booy bëri ak samay am di jàmm moo tax ma ne làmb dafa bëri injustice boobu mooy injustice bi nga xam ne ñaan ñaanuñu ko yàlla booy chrétien yi sax dañuy topp mbër duñ dem église jullit bi du juli ndax la mbër bi ndax mbër bi alxuraan amul mbër bi de am ban mbër am yonent bi sallallahu alayhi moo lëmbe feeb ak ñoom Omar ak ñoom Issa ak ñoom Ousmane ak Aliou loolu tax ma bàyyi làmb dama màgg xam ne man mi dama xawoon gëlëm mais ay pun ma aay li Tupac doon wax booy keep your head up dama ubbi samay bët xool sama yaay laa dese te mag la ak ay jarbaat ak ay sœur ak ay booy ak booy yi nekk si temps bi mënuñu yor mënuñu jot ñu yaakaar si man si samay kàddu moo tax ma ne booy bàyyi ma bàyyi làmb jàkkaarloog si temps bi ak sama waa gaale ak ñëpp mais làmb moom ñëpp samay rakk lañ Molo parcelle la dëkk sama rakk la Papa Sow parcelle la sama rakk la Badika parcelle la dëkk sama mag la Ama Baldé Pikine la sama rakk la Siteu ga la sama rakk Boy Niang Pikine la dëkk sama rakk la. leer na ci tënk rek. Mhm. mbër yi nekk si taan bi yëpp ñu si bëri génération yi man samay rakk lañ kon te dañ may dañ may faral xam nga ñu may faral. Mhm. si ñàkk taan bi mu am ak dëgg bi may wax. moo tax man mu léegi mënutuma far fii far fee ah, far si mbër bi ah fépp. amin na wool jamono ji sa rakk wala sa mag wala en tout cas koo xam ne jege na la bu doon am mm. choix wu topp mbër wala def lamb euh, li nga koy digal mooy mu bañ ko def. xam na laa koy wax fiis mm. xoolal leneen loo def bul topp mbër dama koy rakkee xoolal leneen loo def dama nga joobi wala nga dem taxaw leneen nga uti métier mais nag su dee da nga bëgg nekk mbër ne mbër nga lisi damal nekk mbër parce que terew ma kenn nekk mbër mais ay topp mbër damay naan booy bi bàyyil mbër bi nga dem topp sa yaay mu musaxim nga dem liggéey wala nga jàngi école surtout nga dem jàngi école. est-ce que du déception boo am rek ci taxawaay bi nga xam ne xëy na gisoon nga ni waroon nañ ko am ci ki nga xam ne mooy Jules Balde ndem si yàlla du looloo tax quand même nga nga wëlbatiku quand même idée euh, Sokane. non non booy kooku moom yàllaa ko fi indi rek yàllaa ko jëlaat ko rak la rek du déception ndeysaan du déception nit ñi ñoo nekk fii di wax rek du déception rek yàlla moo tuddoon ne moom. Mhm. jaar jaaram foofu la. Mhm. yàlla moo tuddal ne moom ak ñoom Ama dañuy màggandoo xamante ak waa Pikine yëpp ñu ngi gërëm gis nañ ci taxawaay bu ñu def ci booy bi parce que doomu aadama amul leen loolu bu génnee àddina ay mbokkam taxaw ñoom ñëpp a ngi foon ñoom Ama Baldé ñoom sok ah mafia Pikine bi ay ñoom Boy Niang ñoom ñëpp ñu ngi foon mafia bi nekk parcelle ak ñëpp ñu ngi woon ak booy bi yóbbu ko yóbbu ko suñ suñu borom mu yóbbu ko àjjana force mais ay déception amul foofu suñu borom bu la yóbboo rek. Hmm, man tey bu ma géej mënoon nga ngeen dem seen plateau génn ñu ne la soo dee na mais du dama war a dee mais du looloo tax ma bàyyi làmb de. leer na man maa xool sama suwaaw bu baax. xool ne xam naa mag laa. Mhm. xool sa mère ak booy yi man leen ñi bëggul bëre nañ bàyyi. man bàyyi naa. message bi jàll na ci message bi jàll na Sokana moom la rédaction bi doon am ak jotaay fi ñu tëjalee fi ñu jeexalee émission bi rek Sokana da ngay wax askan wi nga xam ni ñoo lay bàyyi xel jamono ji sur la chaîne des leaders bu ñu demoon ba élection jot quand certainement am nga choix wu benn politicien boo xam ni euh, bu ñëwoon tegantoog yow loxo pour nga jàppale ko dinga ko jàppale wala yaa ngi neutre rek di xaar euh, lu yàlla dogal ci askan wi baax na. I don't believe politician people ma nigga. mais bu nga gis ni moom nga war a am. politiciens yi man déedéet gëmuma leen am révolution man politicien boppam mbokkam bu dara amul ñu ñëw bu dara ñu fàtte ñi ñi nga xam ne du woon dara amul mais tey man su may su ma nee man man maa ngi politique sama politique mooy la néew di doole ku nekk ak nooy géemee la rek ku nekk ak nooy géemee man sama géem si pauvre yi la parce que man je suis né pauvre ma màgg si pauvre mais teewul ne pauvre bu xam yàlla ak yonent bi ku tedd ki la de. pauvre mu muus du ma pauvre rek complexe la ne ko yeboo bi bu taxoon sama kanam ma ne ko doo foog am telling you maa gën. man damay am di séddale di boole. leer na man du ma complexé. xam nga ne ma jaaxal mooy li mu yàgg wax ay ñoom pak ay fit seen ñooñu xam dañu yor ay milliards nekk black people di ko jox booy gëbla bi. mais suñu gaay yi fii ñi gaay yoruñ dara dañuy xaañ. leer na ay dóorkat lañ. ay dóorkat lañ message te la de. Uh-huh. gaay comme booy Kaamaan yi ñu nekk si kaw ñi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi xam na lañ war a def. Uh-huh. xam na lañ war a def. Uh-huh. ku si nekk xam ne senegal nga jóge même boo jëregul Sénégal am nga ay papa Sénégal wala yaay sénégalais chaque fois. del fàttaliku jolof di fàttaliku rakk yi nga bàyyi foofu ak booy yi nga bàyyi foofu di créer action comme sam booy bi ñu ngay gis nii Papis booy bi Guérouche Guéréro Dipporid la créé ñoo ma jox jam bi Guérouche Guéréro Dipporid mooy da ngay dem am ñëw indi est-ce que la mais nekkul Guérouche Guéréro daay bi fit seen waxoon ah mais da ngay def loo xam ne day teraanga woo xam ne booy sénégalais dañ koy jëriñoo dañ koy dirim. mooy dem naa si kaw man soo dam naa seet. kaana yi dama leen yuus gëm loolu ne duñ dara tibb milliards yi indi ko Sénégal. leer na xool mafia bi yëpp fu ñu munti ne si town bi ubbuñ fa ay société wala ay business booy job ñi naa bingi loolooy live. message bi leer na. waaw ah. mbégte la woon quand rédaction bi ñuy fàttali ñu rek waxtu bi moo ñu xaw a tënk tuuti Sokana c'était un plaisir quand même rédaction bi am ak yow jotaay gërëm la ci disponibilité bi ak waxtaan bi nga xam ne accordé nga ñu ko.